ndax jëpp jëf ju ñu jëf ca bi tax ka ko jëf jëf-jëf ja bee ko raw gën koo rafet la mu jëf looloo waral Cheikh Amar jëf-jëf ju rëy fa barab mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu ngeen gisee tey Allo Dakar dellusiwaat fii tey euh, ku gis li xam ni am na événement bu mag boo xam ni saa su ne dafay am muy xel xelkom bi nga xamante ni Serigne Saliou Mbacké moom Cheikhul Khadim mu sëriñ Touba moo ko doon woote ci ndigalu sëriñ bi yàlla def nag tey ñu ñëwaat fii dellusiwaat ànd ak ki nga xam ni mooy jëwri ngi xelkom muy kan muy Cheikh Amar Mor Alhaji Abdou Amar ak ajaratu Koura Ndiaye te ndar-ndar boobu naaru ndar manko boobu nga xam ni la daloon maamam yi ñoom moo ko dal maamam yi ñoo dë ñoo daroon yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ay maam ànd kook Serigne Touba muy taalibeb Serigne saali boo xamante ni si lépp loo xam mi ngi aajo ci xel koom sëriñ bi jël ko def ko muy xel xelkom ba tey boo xoolee ñi ngi fii nag ci këram fii ci Touba ci togg yi ñi nga xam ne dañuy togg saasu ne di ko jël di ko yóbbul ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ci biir tool bi ñu toog ak koo xam ne nag day kenn ci biir kër gi bu ñuy wax naan kenn ci kër gi daanaka mooy géwélu juddoom gën ñu koo xam te lañ naan loo xam naar ah, ma demba ma demba gën laa xam boppam kon kii ñu taxawal muy soxna Lama moom la ñuy bàyyi jox ko kàddu gi di ko nuyu soxna Lama na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. yal na yàlla nangu ziar te boole ñu ko. tey nag Allo Dakar dafa dellusiwaat fii fekk la fi ci liggéey bi nga xamante ni si mooy liggéeyu Xelcom ñu jël liggéey bi yëpp nag teg ko ci loxol ki nga xam ne mooy Cheikh Amar muy jëwriñu liggéey bi bu ñu ñëwee nag fekk la fi yow mi nga xam ne yaay géwalu juddoom ñu bëggoon la laaj yow nan nga gisee liggéey bi ak nan nga gisee li nga xam ne euh, jël nañ ko teg ko ci Cheikh Amar mu féetewoo loolu te boobu ba léegi it dara ñaawu ci. alhamdulilah rabil aalamiina ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi sallallahu Alaihi Wasallam, di sant sëriñ Bamba di ñaan ci yàlla yal na yàlla mottali di leen gërëm yéen it nag ndax lii ngeen def foor na euh, ndax Cheikh sëriñ Saliou rek ko ñor. te sëriñ Saaliw sëriñ Touba mu doon koo nga xam ni lépp lu mu liggéey ak lu mu bëgg ak luy bëgg-bëggam mooy luy muy yëngu ci waa kër sëriñ Touba rawatina nag sëriñ Saaliw rawatina seexum sëriñ Saaliw nag ndax euh, tabarkalla lii nga xamante ni bi moom la ñuy def fii ci waañ bi muy rey ay nag di togg ay xar lu nekk di fi ñëw loolu seex gëm-gëm gëm-gëm sëriñ Touba moo tax gëm gu mu gëm Serigne Saliou moo tax moo tax nu tey jii mu jël lii nga xam ni sëñ Cheikh daf ko koo sas muy liggéeyu sëñ Saliou bi nga xam bi fi sëñ Saliou jógee léegi daf koo jël teg ko ci loxoom sëñ Cheikh sëñ Cheikh jëlaat ko def ko jëriñu xel koom Cheikh dara ñolu ko lu may sëñ saaliw loo wax li mu tëdd lépp dara bis ba nga xamante ni bii ni génn na hôpital dara nekkul ci xelam lu may xel koom loolu xam nga ko amul gëm-gëm doo ko def nit ñaa ngi lay talal sa bopp yow ngay tal liggéeyu sëriñ tubaab bi di tal liggéeyu koom bi bu seexu xelkoom rek a ko daal waaye nag loolu mën naa nekk ndax euh, ba sëriñ euh, Seydina Mohamed di jóge màkkatal mu kan di ñëw Medinatu Munawwara darma ya ngi ko yee ko dalal ñu di ay ayoo balansaar nag boo demee ca Kaaba ga foo féete ci sa ponk penku foofa la maamam yi dalaloon nag Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam mu bokk ci waa kër Alaaji Malick nag ndax tàkkusaan genn tàkkusaan dong nag la sëriñ Bamba daje woon ak Alaaji Malick ca Njaarnde muy dëkku maamu Cheikh Amar mi mu dëkk diggante jéemul ak Njaarnde waaye nag loolu yëpp nag mu jël ko nag ndeyam doon kenn ko nga xam ne nag njaay ma ko doo ko yow mii dëkk ndar loo gàtt gàtt dégg dégg dégg nga njaay ma kodd njaay njaay ma kodd njaay nag moo jur ajaratu kuré njaay mu jur seex mi ak jaara mi doon jëwriñu waañ wi muy seen mag nag seex doyloo ko jël lépp ci waañ wi teg ko ci loxoom ah jërëjëf ajartu laama danga wax léegi lu am solo da nga ni seex bi mu génne hôpital dara nekkul ci xelam lu dul ah, xel koom waaye moom da ko waxal boppam dafa ni ko sëriñ bi di day dafa wax ni Serigne Touba lu nekk si boppam euh, suñu borom dimbil ni ko ba mu def ko waaye amoon na li nga xamante ni si moom da ko daan ñaxtu wala sax ba ñaxtu sëriñ bi dafa daan wax ni li nga xam ne daal moo ko manqué ci liggéey mooy ay tool tool yooyu nag moom la yàlla def tey bi sëriñ Saliou Mbacke ñëwee te sëriñ Touba wax ne Saliou mii de sama doom la ba ne lin xaadati ujuuru wal masaalihu bi tey iwal jës bi wa inni saalihu Serigne Saliou moom di Serigne Touba nag woote koom bi mu wootee xel koom nag yaakaar naa ni kenn mënu ci Cheikh Amar mi nga xamante ni si dafa doon lii mu nekk ndax tey boo demee Ndar ba xool waa kër Ajaratu Koura Ndiaye nga xool jigéen ju mën góor jooju nga xam ni léppam da koo jëloon jébbal ko Serigne Touba bàyyam nekkoon da naaru dar mànko boo xam ni boo nee njarne xam ni dëkku lislaam la dëkku diine boo nee jéemul xam ni dëkk ñu am jom lañu am fulla am fayda nangoo liggéey te lislaam rek ñor leen cheikh nag dafa wax ni moom ñaari bis rekk la am bi ci njëkk mooy màggalu Serigne Touba beneen bi ci topp mooy Xelkom nee na moom wootewul amul benn programme xam nga ni réew mi yëpp ñu ngi koy ñaanal sans borom may ko fan yu gudd réew mi yëpp ñu ngi koy ñaanal sans borom mi yokk ko yàlla may ko wér ndax day commandable Serigne Touba boo xamante ni si bëgg-bëggam yëpp gannaaw liggéey bi nga xamante ni si mooy liggéeyi xel xelkom bi mooy liggéey bi muy def amul benn ittee lu dul mbégum Serigne Saliou lu dul mbégum Serigne Cheikh Saliou léegi nag ñu bëggoon la laaj maanaam gannaaw yow mi nekk ci waañ wi ànd ko soxna jaare ci moom lañ jëm boobu ba léegi manam ci ci ci togg yeeg yi ngeen def nii daanaka xara mën nañu xayma gi bari na bari go xamanteni ci si ak nit ñi ak ñi nga xam tay ñoo nekk ci biir ñoo nekk xelkom ci tool yi nan ngeen di togg gi nan lay deme da ngeen di def su nekk agni reer ndekki wala dal waaw xam nga loolu boo ma ci laaje dina ci sawar. ndax lu mu ca doon lu ne. bu ko seex joxe jaar ci sama loxo bi la koy tek ñu ndugg ko fi mu nekk ni gis nga fi ñu toog tek fi mbane yi yu ko duubal ci ma nga xel koom ñu togg di jox ña ca ca tool ya ñun bu ñu yekkee ñu nekk fii ñu jox leen añ jox journaliste yi añ jox ñi ñëwal seex añ yi ñi nga xam ne kaar yi nga xam ne dafa ñu dañuy wëlbatikuwaat ñu joxat leen añ est-ce que comprendre nga li ma dafa mel ni Cheikh daal waañ bi nekk fii am na waañ woo ma nga xel koom ñi nga xam ne mënuñoo dem nekk ci liggéey bi lépp daal lañu ñuy toggal fii boo booleeg tam la fa nekk incha allah jërëjëf moom looloo ko ñor ah, xam nga nit dama ko wa dama wax ci eh, bi eh, biñi ñuy inauguré jumaay eh, Masalik ji mu togg mu def camion ndox def camion boisson ray juróom benni nak ñu togg ko ay añ ñu yebul ko tabarkàlla khalifa bi mu ni nañ ko tek ci euh porte parole ñu indi añ xam nga li ëpp solo moy kérok bi nga xamanteni bi ni seex yalla def na ndog mo mu dal ko ku fa danga naa seexum Serigne Saliou waaw loolu lu ko gën a foor liggéey bu mu liggéey ci kër sëriñ saaliw la. añ yooyu noonu lañ ko yóbboo ñun ko seex tee ngaa bàyyi ba déwén mu ne fii ma tëdd li ma fi war a def lépp ci kër sëriñ Touba ak kër Serigne Saliou dama koy def. añ yooyu man mi maa ko yóbbu dinaa la woon léegi. jërëjëf soxna laa ma jërëjëf. ndax jëpp jëf jëf ca bi tax ko jëf jëf-jëf ja ko raw gën koo rafet la mu jëf lolo waral Cheikh Amar jëf-jëf jurey fa barab bu mag banek fa touba